asalaamualeykum wa rahmatullah wa taala wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar bu ngeen gisee sunu jataay bii nag li ko waral mooy di leen yëgal màggaluk daaru moxti ginnaaw bi nu jotee ndigal ci Serigne Cheikh Khady Mbacké ñu ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te wér waa kër borom daaru moxti yi nga xamante ne ñu ngi fii ci France dañoo amoon yéene comme niñ koy defee at mu jot taxawal fi màggaluk daaru moxti di ko def nag le 6 juin incha allah ca Aulnay Touba Aulnay ñu ciy woo mbokk taalibe yëpp ren jii nag li ci yéeme mooy dañ koy def di ko boole ak bisub Serigne Abdul Xaadar Mbàkke nga xamante ni waa daaru moxti ak daayirëb Serigne Abdou Abdul Xaadar Mbàkke bi ñoo koy bokk di ko def kon nag mu doon bis boo nga xamante ni bu ama am solo la ndax yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ni sëriñ Abdou Khadre ba mu gannee àdduna maam Thierno Birahim la sëriñ Touba waxoon mu dem jox ko aw tur booleel ko ci niit tànk yi jéego yi ngay demee bi ngay dellu si képp ku la gis rek yaramam aramal na sawara kon nag yaakaar nañ ni bis yi daje loolu du hasard kon nag képp ko nga xamante ni ñëw nga ñëw nga ci rek wala nga am yéene yi tàbbi ci bis bi sunu borom mën na la caa defal li ngay sàkku lépp te it bu nu fàttali ko wax ji sëñ Mbay Jaxate di wax naan waxtaane gaay waxtaane yàlla ki gaayam cër bu nit masa am xamal ni kat ca la juddoo yow murit bi xamal waxuma la waxtaane gaay yi yàlla waaye nag bis bi nga xamante ni dañ koo taxawal ngir gaay yàlla yooyu borom daaru moxti ak sëriñ Abdul Xaadir nga xamante ni bis baa dañu ciy jàng alquran di ci jàng xasida di ci fàttaliku seeni jikko ak seeni dundin loolu lu ñëpp war a ñëw fekke la kon nag ñu ngi ci woo képp ko nga xamante ni yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah ñu ngi la ci woo bàyyi bàyyiwun benn daayira tàmbalee ca daayirab sëriñ Modou Moustapha ak daayirab sëriñ Basirou ak mboolem daayira yi nga xamante ni ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci Île de France gi yëpp ak sax lu ko jiitu lu ko lu ko lu ko gën a yaatu noo ngi leen di woo ci sunu bis bi nga xamante ni dañ koy def rek waa daaru di ko def waaye bisub sëriñ tuubaa la ndax bis bi li muy li ñu ciy màggal mooy keroog ba nga xamante ni Serigne Touba jóge na ci géej gi gisee ak borom daaru ca ndar loolu lañ ciy màggal te Serigne Fallou ki indi woon ci bis boobu. kon nag ñu ngi yamale foofu kàddu yi bu noppee di jox Serigne Miqdaat mi nga xamante ni mooy jëwri ni daayira bi mu yëkkati kàddu yi woote ci mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yi buñ ca noppee teg ci Serigne Modou Diop sëriñ Khadim Mbacke ci turu sëñ Mame Balla mi nga xamante ni mu ngi nii teewe jataay bi di sunu kilifa. moom nga xamante ne li ñuy def ni yëpp ci ndigalam lañ koy defee sëñ xaadim la jox kàddoom ngir mu jottali ko woo mbokki taalibe ak mbokki jullit yi. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit ñëw leen ñu di leen balu àq di leen balaax di leen yëgal saxoo def at bu nekk fii ci Touba Paris ñoo ko fas yéene def le 6 weeru juin ma ci woo mboolem mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi nañ ci daan ñëwee ñu ñëwaat te gën a cee gën a gën a bari ci ñëw gi soxal leen ñëpp ñëw ngir yàlla ak jëmmi Sëriñ tubaab di leen sant ci ñëw gi ngeen di ñëw chaque chaque année di ci def seen loxo ak seen doole ñëw leen ci sant bu baax a baax ngeen def ko na ko daan defee rek di ci di nuyu waale waa Marseille ak waa Bordeaux waa France gépp daal ak waa Italie ko defee rek mu defe ko nañ ko daan defee kon nag ñoo ne sant leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu santee Serigne Touba sant Maam Thierno Ibra Faty di dellu di yëgle suñu màggalu boroom daaru gi nga xam ne dañ koy def at mu ne fii ci tuuba France tey mu tombeek juróom benn fan ci weeru juin ñu war koo def nan ko daan defee at mu ne nag di ci woo sama mbokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal nekk France muy xale yi nga xam ne ñooy yëngu ci kër Sëñ tuubaa ak li ko ak képp ku fi yaakaar borom Touba ak koo yaakaar ci kaw suuf rek ka nekk ci France ñoo ngi lay woo ci màggal googu nga xam ne moom la ñu defal borom daaru ren nag mu am tawféex gu ci am goo xam ne dafa bokk ak bis sëñ Abdou Khader moom Serigne Touba seen ñaari mbir yooyu dëppoo ba tey jii ñu boole leen seen màggal gi nekk benn ñu ciy woom bépp mbokku taalibe bépp mbokkum jullit ginnaaw loolu ñoo ngi woo ñi nga xam ne ñoo daan jàpp ci liggéey bi muy xale yi nekk ci kër Sëriñ Tuubaa gi Aulnay ak xale yi nga xam ne ñoo daan jàpp ci njàngum xasida mi ak liggéey gi nga xam ne moo am ci biir kër gi yëpp xale yi sikkar yeeg ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn ñoo ngi leen di woo ñu ñëw jàpp ci bis bi nga xam ne moom la ñuy defal borom daaru ak sëñ Abdul Xaadir bi nga xam ne moom Sëriñ Tuubaa fii ci Tuubaa nay ginnaaw loolu dong lan lu ñu ciy wax xanaa di doole sant di ñaan suñu Cheikh Xadim yàgg fi lool te wér yàlla bàyyil ñu ko fi suñu kanam ak kanam moom njabootu borom daaru gi fi nekk yëpp wasalaam. 2 1 0. auzu billahi samiil alim mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di ziar ndaxte bis biñ daan def mu jóge woon ci ci jamono yi sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Fallou mi ko indi ci bis bi ñu màggal tey boobu moo ñëwaat. ñu koy jagleel borom Daarul Muxti kon ci ndigalul sii di Mokhtar ak Baye Cheikh Khady maa ngi wax ci turu sëñ Maam Balla mi nga xamante bi ne moom moo ci nekk fii ci Paris di suñu kilifa ci bis bi nga xamante bi ne def naa am na ku ko wax sànq dañ koy defee Daarul Muxti waaye bisu yoon murid bépp la ndax Serigne Touba bi muy dem dafa waxoon ne maa ngi dem ngir yàlla ngir wuti daraja timit ngir wuti ma mën a euh, rammoo sama xeet mooy sababu xaybatiya an allaha arada an akuna euh, an anaala minhu jaaha wa an akuna xaadiman euh, mooy ñaar yooyu moo taxal mu dem waaye tamit bi muy ñëw dafa wax ne ijaal rujuuxi ila xawmi shahaadatana wal takfina maanaam loolu noonu mooy bis bi muy ñëw ci Sénégal mu yàlla def ko mu bis boo xamante bi ne la mu waxoon ba muy dem mooy fegal ñu ci sawara ci bis ba nga xamante mooy bisum njàqare ba bis boobu kon moom mooy bisu borom daal Muxti mooy bis boo xamante bi yoon murid bépp ko bokk mën nañu wax ne sax xeetu Sénégal bépp ko bokk ndax ñun ñëpp nitu sëriñ sëriñ bi lañu képp ko wax ashhadu an la ilaha illallah moom la ñuy woote kon ñu ngi ci bépp képp kuy ab jullit wala képp kuy ab sénégalais ci fii ci Paris wala fii ci France wala képp kuy jot suñu kàddu ci mën a agsi ci ndigalul sëñ Mame Balla ñu ngi la ciy woo di nekk bis boo xamante bi ne comme niñ ko waxee ci sëñ bi waxe woon ci woote gàmmu rek maanaam bi sunnati lañ ko fas yéene teg ci ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alquranul karim maanaam jàng alquran bu ñu xëyee jàng ay xasida tamit labirante ci suñu wàllu diine ak suñu wàllu taalibe fas yéene nañ fa waxtaane ci thème bi comme ni ñu ko waxee sànq dafa nekk loo xamante bi ne dañ koy ànd ak waa kër Sëriñ Abdul Xaadir kon dana am benn thème boo xamante dañ koy waxtaan ci ak mbokk ndax daa xaw naa tumuraanke ci jamono ji maanaam ñu xool borom daaru naka la taxewoon ci mbokk gi exemple wane ko wane taxawaay bu rafet bi mu ci njabootu sëñ bi ci diggante mbokk ak mbokk kon loolu dana ci fas yéene am guddi tamit dana am yeneen waxtu boroomi xam-xam yu fay waxtaan ak ay jàngkat xasida yu fay ñëw di jàng kon lii daal mooy ci gàttal programme bi di wax ni képp koo xamante bi ne coloré sëñ Maam Balla nga wala ak képp koo xam ne mbokkum deret nga wala mbokkum taalibe sëñ bi mi ngi la ci woo di wax ne nit ku ne liñ koy waxee amul lu bisam te ñun nag lii la sëñ bi jagleel mooy bis bi nga xamante bii ne Serigne fàllu moom moo ñu ko tànnaloon nee na bis boobu noonu mënuñu am beneen mbégte bu gën a rëy bis bi ci ci yoonu murit bis bi nga xamante ni mooy ñëw sëñ bi kon mën nañu wax ne du ñun dañoo ko moom waaye dañ ko bokk ak ñëpp ñoo koy def di ci fas yéene ànd ak képp koo xamante bii ne yàlla mën na la nga teew ànd ci ñun di jéggluwaat ci kanam yi euh, sëñ Mame mi ñu wax waaye comme que ndigal la ñu ngi fas yéene wax ci kàddoom di fedd la rek ne képp koo xamante ne yàlla man loo naanu ko nga ñëw ànd ko ñun ñu nekk ñu jeexal ko tamit ci ak jaamu yàlla te sëñ bi nangul ñu lépp kon ñu ngi ñaanalaat bu baax sëñ Seydil Maxtaar ak si Baye Cheikh Xadim mi nga xamante bi ne sagu borom daaral sagu yoonu murid wépp la ak surtout ñun waa Daarul Moxti yàlla yàggal ko fi ba lépp lu muy lu muy lu muy sumb rek ñu fas yéene àgg ak mboolem jullit yëpp ak taalibi yëpp wasalaamu aleykum comme ni kilifa yi wootee kon bis ba dana tàmbali bu 10 heures fukki waxtu jotee ci suba ba fajar ñu ngi koo waxee rek ni ñu ko waxee rek ñu ngi woo wax dëgg yàlla suñu mbokk jullit yëpp muy daayira tijaan yi nekk ci dëkk bi ak laayeen yi ak xaadir yi bàyyiwun kenn kuréel yéet rawatina kuréel Touba Aulnay ak Touba Taverny ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi ñu ñëw jàpp ci ak nuñ ci mën a jàppe daal ñu leen ci woo bu baax a baax ñu jàppe ko seen bis ak kuréel yi durus xaside yeeg bàyyiwun kenn daal daaree kaamil yi nekk ci dëkk béppit it ñu ngi leen di woo ñu teel a ñëw ànd kook ñun kon loolu moo doonoon kàddu yu woote yi ñu ngi ñaan fekke ko ay déwén yu bari te képp ku fa ñëw rek ñu ngi ñaan li ngay sàkku lépp àdduna ak alaxira yàlla na la ko yàlla defal ci barkeb borom daaru ak barkeb Cheikh Abdoul Khadr jërë ngeen jëf الله